yaa ngi doon wax ci ku dugal publication retiré waat ko mu di Bougane Gueye Dany démb ñu gis benn réplique bi mu def jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko euh, retiré waat ko mais ñàkkul ne liir nga taxi bi donte la mu fa def diiréwul ban commentaire nga may defal ci taxi bi. ay la fàttali ma ay la yeween man du ma liir lu Bougane Gueye di bind dama ko amuma jot boobu xam nga nous avons trop de choses à maa ngi jóge Mauritanie. maa ngi la koy transféré. n ce pas sa téléphone. doon oui tase ak waa Pastef maa ngi nuyu en passant monsieur Touré. <laughs> maa ngi nuyu Doudou Dieng. maa ngi nuyu madame Seck ñooñ ñi nga xam ni Pastef Mauritanie laa leen fekk recevoir leen pour waxtaan ak ñoom encourager leen parce que c'est une grande communauté loolu ñun ci loolu la ñu nekk. <laughs> ba ma fa jógee maa ngi nekk ci ay réunion gis nga secrétariat général bu PASTEF. Mhm. ñu ngi réunir démb. di xool nan la ñuy terminer le règlement intérieur ak nan la ñuy joyante yi nga xam ni. Mhm. dañu jëloon lu bëri teg ko suñu kaw. ba tax mënuñu réunir di def yenn affaires yi loolu la ñu nekk di joyante fi mu ne. donc mhm. ñun am nañu lu ñu liggéey. donc looloo tax du ma am temps wu lire lu nga xam ni dafa jóge ci ku nga xam ni véritablement bu waxee rek du wax jàmm. mais euh, il faut que ñu taxaw si nag. Birame Khoutia xam nga dama yem ci loolu maa ngi la envoyé maa ngi la envoyé noonu texte bi. c'est-à-dire que Bougane dafa jàpp ne moom. Euh, Ousmane Sonko donte le kàddu yi am na nu mu xaw nu mu xaw nu mu xaw a demee ba duñ ci mën a ñëwaat mais euh, ni mu ko caricaturé jàpp naa ne mën nga ci taxaw yaatal commentaire bi. bon je sais pas quelle caricature il peut pour un. oui parce que rappel bi muy def bu mu ci taxawaatee dafa mel ni mbirum Adji saar lay delloo si waat. xam nga loolu mooy. waay ñu daanu ci sareet. mbiru Adji Sarr bu ñu ciy dellusiwaat. mais Bougane Gueye lay ñu accusé parce que Bougane euh, Gueye euh, Adji Sarr a accusé Bougane Gueye d'après Mara ci naka ah fooy nee na ci ñu ñu ñu lim ni dañu tëdd ak moom mais moom ci la bokk. wala ça a circulé un peu partout. non mais loolu moom alors que looloo gën a taxaw li ñu accusé Ousmane ko looloo gën a taxaw fuuf li ñu accusé Ousmane ko parce que li ñu accusé Ousmane Sonko Sénégal entier weddi nañ ko mais Bougane Gueye Dany <laughs> mais man. du ma wax lu ñaaw waaye na dem ci ñoom xaw ma nu ñu tuddati waa booy bi mu nga xam ne léegi teggi na ñoom Youssou Ndour ñëpp moo leen dàq way booy bi. waali ou bien. waali ñu waali waali ba. waay. waali. <laughs> na dem ci famille ay waali man dégg naa foofu ay affaire ah damay dégg ñuy wax mais yooyu moo gën a am importance ah naka li gënte ah. comme xam dégg naa j'ai vu ci ay réseaux sociaux ñuy wax lu ne. ci par rapport à kii euh, ak yaay waal nu mu tuddati ndeysaan euh, alhamdulilah maire bi gaañu. moom it jabar coon euh, yooyu yëpp ñu ngi ciy dégg ay affaire ah jaaga ooy. waaye moom lu lijjanti est-ce que loolu gën a luur fuuf. <laughs> yii may de man yooyu ku ma ko wax dama koy lijjanti ah bu dee réglé na dem réglé yooyu mais gi damay dégg ay ojo ay du n'importe quoi ci moom ah. <laughs> loolu mooy problème bi aujourd'hui quand il parle de Ousmane Sonko mais personne ne l'écoute regarde le nombre de vues par exemple. mais personne ne l'écoute les gens ne le prennent pas au sérieux kilifa attention attention kilifa da ngay nekk kilifa xam nga dafa am wax yoo xam ne way képp kuy kilifa mhm. doo ko dégg ci gémmiñam lu tax mu dugal ko retire ko mhm. dégg naa rek dugal na retiré ku lu tax mu retiré ko daf ko rëccamtiku parce que dañ ni ko kilifa du waxee noonu nan nga mën a waxee loolu ba pare ñëw sukk ni groupe ci kanamu sëñ Mountakha Mbacké nu mu lay xoolee bu ko yëgee doo rus pourtant sëñ taxa moom dafa recevoir Ousmane ko jox ko euh, les honneurs yu gën a rëy yow nga ñëw nga ni taalibe nga ngay waxe noonu. kon teggi nga yoon. moo taalibe Bamba. teggi nga yoon. kon loolu mooy problème bi. Mhm. Touba ak foofu nekkul ay dàggasanteeg waxante ak dinaa tontoog nangam. yooyu attention jox na leen rendez-vous nee na après jox na leen rendez-vous nee après Magal. oxo ñun du ñu moroomam. kon nga yëg ne seen kaw la jëm si. dama ni du moroomam laa wax man du ma moroom bugaat man laa la wax moi je parle pas de Ousmane Sonko man du ma moroom bugaat dama répondre quel est son économique ba ma ko kañ la il n'a pas de modèle économique combien de personnes il a embauché et je viendrai sur ces patrons de presse là ñoom moomu ñu réew mi euh, nu mu tuddati Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak euh, l'administration sénégalaise nañ jël seen disposition am na lu ko xam réew mi ci naka. jël seen disposition. li mais nañu jël seen disposition. lii du ay menaces. sur le plan des travailleurs. li du ay menaces. defal ndànk nañ jël seen disposition sur le plan des travailleurs man mënu ma nekk patron de presse. oui wala ma nekk patron d' entreprise di utiliser nit bu ma neexee ma dàq ko y' a un journaliste qui m'a appelé pour me dire que man dañ ma dàq ma ne lan la mu ni ma ba bañu toogee euh, xaw ma Doudou Coulibaly moo toog xaw ma ak Aliou Sow ak xaw ma kan. benn benn soi-disant euh, intellectuel. <laughs> ñu ni dañ may wëree dañuy may wax man biram xujaloo ba wër ma faf ma wax loo ba wër leen man biram xujaloo ñu bind ni biram xujaloo a quitté euh, la kii la le plateau mën leen ki ki may quitté le plateau maamam juddoogul te muy dëgg ba ñu xoolee kan moo quitté plateau ba du Aliou seetal vidéo ba man dinaa wax ak nit man di ñoom munoon nañu mat fukk ma bàyyi leen ñu wax ku ne ma jël note bu ma paree ma répondre leen ku nekk te du ma jaar ci sa moroom la mu wax lu ma wax du ko waxaat moi je suis un pédagogue. je ne suis pas les gens qui traînent boobu fan la. plateau bu ma amoon la. Elma nee ma dàq nañ ko parce que plateau boobu ma ni ko waaw. dañu yaakaaroon ni boo ma wooyee ci palaato bi. <laughs> teg ñetti nit wala ñeenti nit dinañu wax ba wër ma faf man ma wax ba wër leen. <laughs> parce que dëgg laay wax te ñoom nekkuñ ci dëgg. man maa nekk ci dëgg la may wax dëgg la mun naa bàyyi fukki fen ñu wax waaye dëgg gi bu ñëwee ñoom ñëpp ñu énervé elmat woo ma ni ma dàq nañ ma ndax plateau boobu ñu dàq ok elmat ñaa dàq ma oui ok il m'a dit ah, moi je m'en fiche moi je dis la vérité mhm. ah mais loolu ma ni que da ko war topp liggéey du da ngay liggéey ba sa yàgg rek ñu dàq la c'est pas normal yaa ngi ko yaa ngi ko def liaison ak. Eh, Bougane bi loolu. c'est-à-dire Bougane ak ñoom ñëpp dañuy dàq saa yu leen neexee. il ne paye pas les gens normalement il ne verse pas les cotisations. Ah, mais attention Bougane yàgg na di bàkkoo ak di wax ñëpp dégg que ne moom dafa participer ci emploi des jeunes. ce n'est pas vrai. emploi des jeunes il faut participer en respectant les droits des travailleurs il ne respecte pas les droits des travailleurs je le dis a jóg selon le code du travail toog ba si ak rek nga dàq nit comme ça alors que mi ngi la doon liggéeyal sur quelle base tu lui payes ses droits ou non man en tant qu'enseignant mën nañu xëy su waree dàq ma <laughs> dafa am fu muy jaar il faut que les gens reviennent à la raison dëkk bi dañ ko war tegaat ci yoon duñ ñu fooye ba pare menaces yooyu ça ne passera mais il faut ngeen nangu itam opposant nag non il faut ngeen nangu nangu ku leen opposé avec le chef d'entreprise ce que je fais dans mon école je le fais. Mhm. mais en tant que politique bu may def politique ça n'a rien à voir avec la direction de l'école il faut pas qu'on mélange les choses s'ils sont chefs d'entreprise nekk ci benn presse di ko liggéey mais presse boobu nañ ko liggéey normalement kenn waru leen ci jam naa ni bu ñu la jamul rek boo ñëwee sur le plan politique di nga mën a dem parce que Ousmane Sonko mhm. attends mhm. Ousmane Sonko li tax mu réussir sur le plan politique fa mu doon liggéeyee dañ ko jam waaye naani wuñu ba ñu ko jamee moom moo naani dañ ni kenn du ma jam naani c'était ça alors looloo tax mais yow ci ah mais mais naani gi naani gi naani gi yombul ci Sénégal yi ah naani gi yombul ci Sénégal yi ah problème parce que liggéey ci béréb parce que combat am na toujours mu si doon woo Sénégal yi que gën leen xeex naaneen gi yombul ci Sénégal yi je ne parle pas de ça je parle de fi mu doon liggéeyee oui est-ce que am na lu ñu koy reprocher loolu laay wax boo nekkee chef d'entreprise fexeel ba yow sa travailleur ak ñu ngay liggéey kenn du ni mi ngi may fay quinze mille francs wala vingt mille francs loolu il mais buñ la bu fekkee yow foofu dañu la incriminer nan nga mën a après <laughs> war naan da ngay joxe leçon de morale mais munoo joxe leçon de morale man Saint-Louis laa dëkk attention. ndar la ñu dëkk. sa à dire ah mais ndar la ñu dëkk Bougane ndar la dëkk. c'est-à-dire. <laughs> alhamdulilah. cest dire xam nañu ndar dañuy dem week-end ndar. Ah, mais na leer. non lii muy leer mooy ndar googu mu dëkk. on a vu rien vu foofu. kenn gëmu ko fa personne na le respecte là-bas. est-ce qu'il vient ici nous quoi man maa koy tontu Ousmane Sonko amul jotam. malgré que li Bougane di wër réew mi yëpp nga bëgg wax ne ndar gi mu dëkk xamuñu ko. dara dama def defu fa dara laa wax moi je di paa xamuñu ko xam nga booy boo sàkkee sa télé kay ñu xam la mais def laa wax di def lu nga xam ne dañ koy gis à chaque fois on me dit oui ceci ceci ceci voilà voilà regarde et cetera ay mbokkam xam nañ leen dara attention. am na yoo xam ne bëgguñu ci dugg quoi on ne veut pas personnaliser le débat mais ñoom ñoo ñuy dugal ci loolu parce que ñoom ñooy def débat de personne quand on vient sur les principes <laughs> mois je parle du travail de l'entreprise des cotisation sociales yi mu war a def keneen war ko def man ma nekk enseignant di cotiser social nga xam ni wóor na ma ni li ñu ma dagg man na cent millions ba ma dalee liggéey ak léegi ñoom ñu bëgg ñu réduire leen li leen dagg kon man nañ ma réduire Sénégal laa comme ñoom ba pare ñoom ëpp xaalis ay la yéwén waaw bu fekkee ñi am xaalis ñoom ñooy bañ a fay impôt mais ñun ñi nga xam ne ay fonctionnaire simple lañu dañu dagg suñu impôt bokk. loolu mooy la a a yoree parle de xam nga yaa ngi wax ni ñu war a yore nguur. man dama lay nga li tax ma wax loolu. dama lay expliquer dama lay expliquer li tax ma wax loolu. li tax ma expliquer la li ma lay bëgg wax foofu mooy Ousmane Sonko bu ko neexee mu séparé homme politique bii wax bu ko neexee mu ne moom mooy chef de parti foofu casquette boobu lay waxee bu ko neexee tey mu doon ab premier ministre di wax discours am bu mu sentir pour wax ko mais bu dee Bougane Gueye wala keneen bu leen bëggee opposé ngeen bëgg jël casquette politique bi teg wala bëgg itam jël casquette euh, entrepreneur bi teg il fa que ngeen nangul ko moom itam séparation bi muy def. deful séparation dafay jaxase lépp. loolu laa la li muy incarné ci opposition li muy incarné ci opposition. j'ai vu des gens qui ont xam nga kuy xalam di ca jaayu moo baaxul c'est-à-dire boo ko defee ci biir politique amoo éthique amoo déontologie amoo morale l'éthique la déontologie et la morale hmm. voudrait que boo amee entreprise de presse nga bañ ci abuser di ci jaay sa tur wala nga ci bañ di abuser di jël ay journalistes yu la neex nga teg leen parce que dañuy xaste yi la neexul nga dàq leen loolu moo normalul et je demande aux patriotes bu fekkee Elmat li ma wax dëgg la de nañ ko employer le plus rapidement possible parce que organe de presse yi bari na fi parce qu'il est sérieux tout simplement il a dirigé un débat un débat où on croyait que Birame Khoudia Lo va être broyé ki may broyé ci débat yaayam ju doogul ça c'est clair net et précis parce que man dama taxaw ci dëgg di def dëgg boo may daan daan ma ci dëgg je suis d'accord ok mais des gens qui se réclament naan man damay xeex ak Ousmane Sonko. moom laay xeex ku ko dul xeex doo liggéey sama télé yooyu yëpp c'est des problèmes c'est pas l'éthique ça c'est pas la déontologie c'est pas la morale professionnelle c'est pas ce qu'on apprend euh, fële ca ca CESTI. kenn jàngalu leen loolu. ok mais ministre bi nga xam ne mooy wàllu communication ni nga ñëwee sànq ci problème impôt yeeg yi ngay wax noonu ak euh, problème këru taskatu xibaar yi démb gis nañ def conférence de presse weddi ko ne fi mu aj bor bi yeggu fa. bor ban mu mel ni Maimouna Ndour Faye ak Mamadou Ibra Kane. waay dette fiscale bi. waay làmmiñam ma nga dafay nàcc est-ce que tane na xëy na dafa taneegul ca agression ba. pour ma wax ñu nga xam ni véritablement on les connaît. non mais mais seen wax. mais il faut nga bàyyi ma ma wax. wax nga ba pare ma ma wax. dama ne la bul ma wax wax ñi nga xam ni. wóor nañ ni ñëpp ay péete la am wax ma El Hadj <laughs> wax ma ñu nga xam ni ils sont sérieux <laughs> quand ces gens les parlent les écoute mais Mamadou Ibra Kane c'est qui. Maïmouna Ndour Faye je la respecte très bien mais mooy kat mais journaliste bu nga xam ne dafa war respecter les choses comme il le faut bu fekkee chef entreprise de presse la dafa la yore mu taxaw taxawaayu entre chef. bu fekkee ne employé la war nekk mu bàyyi chef bi mu dem nekk employé ñu jël ko bu ko defee lool la mais yow mënoo nii da ngay woote entreprise de presse chef d' entreprise ba pare amee comportement journaliste sax moo la tane amoo éthique amoo déontologie amoo moral bu ñu la fayal nga lu tax ñu la fayal. ba pare après ngay critiquer parce que dañu la fayal. Mhm. mais c'est un problème il faut pas mélanger les choses je dis l'entreprise et l'homme politique c'est pas la même chose sans homme politique waroo utiliser sax sa organe yow sa organe dañ la war a mën a critiquer convenablement. en tant que ministre. non dama ni. est-ce que yoon la woon mu publier li mu publier. nga ni parce que am na sax benn journaliste bu dem ba ne daf leen war par patron de presse dañoo war a porter plainte. nañu porter plainte nous sommes dans un pays de droit. oui moi je suis d'accord pour les plaintes. mais la justice day tëdd njaaxaanaay ak koo fa munti yóbbu boo ñëwee dañ lay wax lañ la war a wax nañu porter plainte moi je suis pas contre cela mais Aliou Sall bi ma xam. c'est un homme juste c'est un homme de principe c'est un homme de valeur c'est un homme bu nga xam ni euh, xuux xuuxal tiitalu ko. ok c'est quelqu'un qui reste sur les principes malgré tout ce qui se passera bu ñu ñëwee dañ ko fekk mu ni tekk nañu wax ak Babacar Diagne Babacar Diagne a parlé. ils n'ont qu'à l'attaquer pour voir loolu mooy problème bi pourtant Babacar c'est quelqu'un aujourd'hui c'est là qui dit voilà voilà voilà ce qu'il faut nañ ko wax lan la ñuy waxee ministre bi y a des organes ministre bi carré na ci ñoom malgré cela def na conférence de presse pour wane ni ñoom ils sont disposés à discuter avec tout le monde tous les Sénégalais sont égaux devant la loi et devant les privilèges loolu ñuy wax ni presse bi am na lu lu jot a suulu wala on a réparti inégalement les choses. Oui. mais loolu c'était du temps de Macky Sall. on a réparti inégalement les choses parce que y des gens qui étaient du côté de Macky Sall. <laughs> ñu nga xam dañ leen di neexal lu bëri. am na organe de presse yu bëri yu tëj lu tax ñu tëj parce que y un premier ministre qui les financé moi un journaliste m'a dit que cinquante organes tëj nañu. mais léegi il faut ñu réguler le secteur secteur d'activité munoo ko bañ réguler. la presse man li ma naqari mooy journaliste yi li ñu leen di noote dañ leen di noot te ki leen di noot mooy euh, euh, entreprise de presse yi. mais est-ce que est xam ni président d'entreprise de presse mais arrêté leen diabolisation boobu. mais c'est la vérité. oui parce que yéen a ngi yéen a loolu dafa ma niru na da ngeen ñëw pour divertir les patrons ak ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi fay liggéey. yàgg nañu am problème man am na ku ma invité woon fële euh, fàtte naa fan la mais dafa ni ma biram fi ñu toog avant ñëw mu ñëw biram ma ne ah mu ni ma nekk naa ci organe deux fois deux ans. ñu ma doon fay vingt cinq mille. dafa gën loolu dëgg la est-ce que loolu dëgg la waaw léegi bu ma ko waxee nga ni lu tax ma wax ko dinaa ko wax parce que je me battrai pour le droit des travailleurs moi je fais pas la différence entre l'enseignant et le journaliste un journaliste doit être traité convenablement c'est des gens qui ont de la connaissance tu ne peux pas les sous-utiliser convenablement vingt cinq mille ngay fay nit te organe moo ko employé fii te je la fille bu ma ko waxee dama yërëm joxuñu ko paas joxuñu ko dara yaa d'autres yu nga xam ne dama leen dégg ñu yoox fii di wax. ok mais ñooñu. man toog naa ak seen ay journalistes man journaliste yi laay amal affaire tu sais je ne connais même pas les parce que ñoom laay taseel donc nañ leen respecter c'est des Sénégalais c'est ça que je dis donc le problème c'est pas les journalistes c'est pas la presse c'est les patrons d'entreprise mm-hmm. de presse investir ailleurs mais xam nga lu tax ñu investir sa presse bi pour defar seen image de marque loolu dafa war a dañ sa image yaa ko war a defar par un comportement exemplaire devant la population. ok am na ñu ko am. ok mais est-ce que jàppoon ne président war na leen recevoir. les patrons de presse kan. patron de presse yi pour ñu waxtaan enseignants yi lu tax du ñu leen recevoir ñu doon dagg euh, dagg man ñaata yoon lañ ma dagg lu tax recevoir ñu ma pour ma plaider aw ma kër buñ ma fayee ñu ma dagg ma am kër ñu ma joxee genn wàll gi mën naa ci jënd kër eh, pourquoi président du ñu recevoir ñun enseignants yi. waaye waaye enseignants ay jóg leen ñu recevoir leen patron de presse ñoo leen ëpp xaalis fuuf te tey ñu ngi ñaan ñu ngi dem sukk di ñaan pour ñu dimbali leen te yéen ngeen nekk ay travailleurs yu diñ mais ñoom pour quoi seen journalistes yi ñu nga xam ñoom la ñuy employé ñoom ñi xam ne ñoo gën a ñàkk xaalis pourquoi ñoom demuñu ñu recevoir leen ñu ñaan pour ñu yokk seen condition loolu laa waroon dégg tey mais ñu nga xam ne vous dites vous êtes des patrons patron c'est quelque qui a la ma ni ku mënul boolu yàqu yawa te ñoom mënuñu bawuñu dañu bëgg di yàq presse bi bu ñu mënul nañu bàyyi ñi nga xam ni mën nañu ñu investir ci presse bi di fay journalistes yi convenablement di leen verser cotisation sociale convenablement man tontuwuma leen lu may wax dëgg la. ok ok bu ñu jógee ci euh, point boobu ñu delluwaat ci euh, rencontre bi nga xamante ni leaderu Pastef amal na ko ak yenn.